bi ci njëkk te mooy anam gi sëñ bi daa tërbiya buñ ko seetloo dañuy gis ne sëñ bi ku masaa ñëw ci moom ci ni Cheikh Mouhamadul Bachir waxee am na juróom-ñaari yëf yoo xam ni daana fa jaar ak yow bu njëkk bi mooy dana la jàngaloo say farata loolu moom seettewu ci woon kenn moom ku ñëw ci moom dana la jàngaloo xam-xam ñi nga xam ne dem nañ ba mënatuñoo jàng xam-xam ngir weetu ko dana leen defal ay tomb yoo xam ne ci wolof lañ leen koy defal di leen seen leeral bëggug suñu borom ak yi suñu borom aaye ak sharia ak lañ war a jëfee ak lañ war a moytu ñaareel ba mooy liggéeyal sëriñ bi liggéeyu yaram ak doole loolu moom suñ Basiir wax na ne ku masaa ñëw fi moom di tërëb yow dana la liggéeyiloo ci tool yi ak ci liggéey yu fasanti ko yoo xam ne da cee jublu dindi taayal ci yow ak ug rëy yooyu la ci jublu woon danañ ci ñëw ci ci détails yi bu ko jaree ñetteel ba mooy ku masaa ñëw ci moom bokk na ci li muy fi muy jaara yow mooy feral loola sa bakkan xamal la ne sa bakkan bii da nga ko war a feral ci bëgg daraja ak bëgg alal ak bëgg daray adduna loolu moom ku masaa ñëw bokk na ci fi muy jaar ak yow ñetteel ba mooy tudd yàlla bu bari ñi àndoon ak moom ñëpp da leen daa sóob ci waxtu wu ne ñuy tudd yàlla subhanahu wa taala ñeenteel ba wala juróomeel ba mooy xam ne yow gënoo kenn te jàpp ne itam li nit di gëne nit mooy gën koo ragal yàlla ak gën koo baax ak gën koo dégg nga sori ci sunu borom tabaraka wa taala juróom benneel bi mooy làmboo ay teggin ci lépp ci wax ci jëf ci say melo ak sa lépp juróom ñaareel bi mooy dénkaan yi nga xam ne nag daana ko def ak mboolem ñi nga tërbiye nga xam ne léeg-léeg day ñëw jotaayoo ñoom di leen dénk di leen tombal di leen digal di leen tere loolu buñ ko bëggoon a faram-fàcce dana jël waxtu xanaa ñu jaar ci bu gaaw bu dee bi ma njëkk a wax muy jàngal gi mu lay jàngal say sa wàllu diine nga xam ne moom seetewu ca woon kenn loolu sëñ Basiru moo ko wax moo wax ne awalu ma yaxuduhum bihi taallumu faraid al ayn al amalu wal inqitaau an malazi dunia maa dicri wa taallumu faraid al ayn feneen fa dafa wax ne yajalu awala ma yaxuduhum bihi taqrira waaji waajibaati diin wa mandubaati yi waaw kon li muy njëkkee yow mooy jàng loola xam-xam nga xam say farata loolu yi digle na ko itam bind na ci téere itam wax na ne bépp murit boo xam ni aju na ci man digal naa la nga xam lu say farata ak li nga war a jëfe ci diine ba xam ko donte ci làkk wa nga namp nga koy xam loo itam na nga ko def loolu wax nañ ci lu bëree bëri alayka yaa muridu bittaallumi fa innahu mutahirun min zulami haaka wasiyatiya ya muridu taxwi bihi jumlata ma turidu fa qaddimi l ilma ala kulli amal wax na ba tàyyi ne murid bi li war a jiitu ci moom mooy xamlu xam ay farataam lépp looy def ci diine nga xam la koy baaxal ak la koy yàq ñaareelu boo jógee ci loolu ku ma sa ñëw ci moom ba nekk ak moom su la dugalee ci daara ji ngay xam lu itam da koy booleeg liggéey bi loolu sëñ Bachir wax wax ne dafa seetlu ni ñi dëkk ak moom fii ci gox yi da ca bari ñoo xam dañuy amuk tàyyal moo tax ku ma sa ñëw ci moom dana la liggéeyloo dugal la ci daara ji ngay liggéey ak tool yi liggéey boo xam ne du dakk waxtu wu ne ñoom dañ daa nekk ci liggéey loolu it boo ci nekkee sëriñ bi da cay boole di la saralloo sa bakkan sëriñ Basiir da wax ne bokk na ci lim leen daa sóob di ko jëmbat ci ñoom mooy xamal leen ne adduna ak xoyoxo yi amul solo sa xol moom bul ci bëgg mukk daraja bul ci bëgg mukk alali adduna itam alali adduna na nekk ci sa loxo waaye bu mu nekk ci sa xol te ngay sellal yéene ci lépp looy defit na dëppoog ni ko sariya ak ni ko suñu borom digle ci lislaam loolu mooy ñetteelu anam gi nga xam ne daana ci tërbiya mbooloo mi ñeenteel ba mooy suub la ci tudd yàlla bu baree baree bari cheikh mouhamad lamin Diop dagana dafa wax ne saara bihim ala minhaji riyadati bi tajwici wal istixdaami alkathir wal xamli ala dikri alkathir bilhaylalati wal qasaidi wa dawaami taharati wal ictizaali an innaas wa xususan innisa wax na ne ñi ñëw ci moom jëbbul ci moom moom sëriñ bi da leen daa sóob ci liggéey boo xam ni bu bare lay doon ànd ak nag di tudd yàlla waxtu wu ne ñuy wax laa ilaha illa allah durub dakk wax nañ ne sax bi mu nekkee fii ci Touba moom sëriñ bi ci boobu moo daa dëb dëbbee lee la bi si kase moo daa nekk ci biir di wax laa ilaha illallah gaa ñi nekk ci biti di toll ñu boole ko di jàng xasida njàng mu bari itam moo xam ni du amuk du amuk du amuk dayo du amuk yemu ndax xasida lépp tudd yàlla la génn ko salaatu ala nabi la ak tagg yonente bi ak tagg suñu borom ak kañ ko ak ñaan ak jéggulu ak wax xéewal yi ko yàlla defal mu ci sant moo tax Sëriñ Tuubaa da leen daa wax ne xayru taami lil muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaalil malik murid lekkam gi gën a neex dafa war a doon tudd yàlla tudd yàlla nag xeet yu bari la sëñ bi wax na ne alquran moo ci gën a kawe xasida yi itam làmboo na tudd yàlla yépp laa ilaha illallah itam bi nga xam ne murid yi dañ ko daal sikkar itam waxtu wu ne loolu ci tudd yàlla yi da bokk ak yeneen ak yeneen lu mel ne wirdul maaxuus bi da ci dugg ak yeneen ak yeneen sëñ mesure wax ne bokk na ci fi mu daa jaar ak ñoom mooy buñ demee ba loolu tàmbalee sax ci moom ñoom mu xamal leen ne li ñuy wax li suñ mesure tudde fahmul musaawaat fexe bañ dégg ne gëm ne yow amul lenn looy gëme looy gën a nit lu may gën koo jub gën koo baax gën koo ragal yàlla loolu la suñ mesure wax is akramul ibadi inda allahi aktaruhum taqwa bil istibahi waalam bi annama tafawut alwara bil ilmi wa diini yakunu fasbira xam ngeen ne sëriñ bi bi mu ñëwee ci réew mi bi mu feeñee dafay fekk ay classe sociale yoo xam ne société bi moo ko jur mooy métier yi dañ ci daa ràññatle nit ñi ki amee kii ëw ak kii ràbb ak kii yat ak kii tëgg yooyu ay métier la yoo xam ni dafa demoon ba jur ay classe sociale ci biir société bi am ñuy bay am ñuy commerce ak leneen loolee nag dafa àggoon ci métier mu ne daanaka ña koy def ñooy ñooy jëlante ñooy ànd ñooy bokk sëñ bi nag bi ñëwee loolu da ko fay jëlee moom bu wér-wér moom murid yi njëkk a ànd ak sëriñ bi sëñ bi faroon na ci ñoom classe yooyu yii ndax métier yi nga xam ne ñii dañ ko daa def da koy def loo ñeneen ñoo xam ne daw ñu def yooyu métier daa leen boole ci ay sëy itam loolu faroon na xeet yi ràññetle googu duggoon ci biir ci biir société bi bokk na ci li nga xam ne itam sëñ bi dafa daa jaar ak ku mas a ñëw fi moom mooy teggin sëñ bi daa wax ne teggin mooy maye yàlla jaamu yàlla yii aljana la lay may waaye teggin mooy maye yàlla xam ngeen ne aljana bërëb la mbindeef la monde la comme monde yi maanaam ab monde la ci monde yi waaye yàlla bukkut ak loolu lépp nag te moo dàq lépp am yàlla nag bukkut ak am mbindeef moo tax suñ tubaab daa wax ne teggin nag mooy ruuxuk teggin dañuy wax ne mooy ruuxuk ak taalibe ki bëgg yàlla kooku teggin rek ci la mën a jaar ba am ko ak murit bu doon jëmm ruux gi mooy ay teggin suñ jubaa dafa jëmbatoon ci mag ñi àndoon ak ñoom ñi àndoon ak moom ne leen nit ki ay tegginam da ko war a feeñal ci ay waxam dafa war a am teggin yoo xam nit day feeñ ci aw meloom feeñ ci ay jëfam feeñ ci léppam nga xam ne suñ jubaa àgg na ci wax ne id kullu man bi gayrihi raamat tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru mactazza bihi du izzi li annahu munawiru ljanaani kama yuqarribu ila ljinaani kon suñ wax na ci lu bëri bëri suñ Bachir wax ne léeg-léeg danaa def day ñëw jataay ak ñoom di leen laabire ci jataay yooyee la daal laabale seen xel seen xol ak seen xel ak seen ruux ci la daal sellale seeni xol ci la daal leerale seeni seeni seeni xel daal leen sóob ci yi seen yitte ji di genn te mooy wut yàlla subhanahu wa taala ak dëkk ci tuub ak dëggmal yàlla moytu xemimteef yi xoy-xoy yi adduna yi mu bañ laa fëkk te looy bëgg wala koy bëgg yàlla kese tax say kërit nga tënk ko ci lu neex yàlla ak luy maye ngërëmul yàlla kon sëñ Basiru nee na loolu dalaa defal ñoom ci biir dénkaan yooyu nag dénkaan yu bari la bokk na ci lim leen daa wax ne murit am na kiiraay yoo xam ni mooy doon barrage yi nga xam ne ñoo koy tee àgg ci li muy sàkk kiiraay yooyu la kiiraay yooyu la ci jiitu mooy xéewal gu bari jëfandiku gu bari lekk gu bari ak naan gu bari ak jaxasoo bu bari moo tax sëñ bi daa wax ne ak sàggan ci tudd yàlla yooyu sëñ Tuubaa daa wax ne mooy kiiraay yi nga xam ne moo gaaw ci def baaraas di gëm ak boroomam di gëm ak la muy sàkk di gëm ak sëriñ bi ba lim bëgg du ko am moom murit bi sëñ bi daan wax ne murit am na jikko yoo xam ne moom lañ ko war a xamee murit bu ne am na jikko yoo xam ne moom la war a làmboo jikko yooyee tënk bi rek mooy li mu wax ne kan ardi yurma fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa malih murit day amee jikkoy suuf lu waay buub ci wax ju ñaaw ci lu bon mën na ko ko xëpp mu muñ lépp nag suñ di wàllu wax ne wasbir ala shabbi wala tujib ahad liñ lay wax ci lu ñaaw na nga ko muñ te bul tontu suñ di wax ne suuf gis nga lu ne lañu xëpp ci kawam waaye doo ko gis danaa dégg rek waaye ku gas biir suuf lu baax rek nga cay fekk murit bi nag noonu la war a mel ku lëmbët biiram ba duggee ci boo jëflanteeg moom ak mbaax rek ngay gis ak lu fees sa bët ci njub ci baax ci sell waaye nag lu ne itam waaye mën na koo teg ci deram te loolu du doon lu lu muy yëg day mel ni dara xewul suuf ku baax dana ko dëgg ku bon dana dëgg ci kawam suñ bi daana wax ne na nga amee jikkoy taw taw bi buy taw du wax ne kër yi mooy kër ñi baax ñoom rek lay tawal ñee baaxuñu du ma leen tawal ñépp lay maase sotti taw bi murit it noonu la la muy def ci lu baax du ci settee ñi baax ak ñi bon ak ñi ko bëgg ak ñi ko bañ ñépp rek lay maase yéenew yiw ñépp lay maase di leen defal lu baax ak di leen ko ji ak di leen caral te yàlla kese nag boo moom la ci sàkku ngërëmam du bëgg ku tagg wala ku koy sant wala ko xam li muy def sëñ bi daana wax ne murit it am na ay melo yuñ koy xàmmee ba ca jëkk mooy bëgg sëriñ bi ashidqu fi mahabbati cheikhi abad summa imtisaalu amrihi haytu warat wa tarku li'tiraadi mutlaqan walaw bi baatin wa maahu salabu lixtiyaar ñeent yooyu la ñu xàmmee ab murit bu muritam dëggu mooy foo ko fekk day bëgg sëriñ bi koo gis sëriñ bi mu bëgg sëriñ bi bëgg gu wér a wér xam ne kooku murit la wala boobu am na wenn melo ci meloy murit bu ca boolee di topp ndigali sëriñ bi te bañ a di nga benn yoon du ci lu nëbbu du ci lu ci lu feeñ lu nëbbu mooy sa xol sa xol bul ko may muy xalaat wala muy am genn genniku ci lu ci lu ab safaan mu di ko gis ci sëñ bi loolu moom bu ko may mukk moom nga boole ci nag bañ a am bëgg lu may bëgg suñu borom tabaraka wa taala loolu mooy sarabu destiyaar loolu nag suñ tubaab wax ne yooyu mooy meloy murid saadiq murid saadiq suñ bi wax na ne bokk na ci niñ koy xàmmee mooy day fonk waxtu li mu war a def waxtu wi tey jii du ko xaare mukk ëllëg koo gis mu fonk waxtu te li mu war a def tey du ko xaare beneen waxtu wuy wuy jub si koo ko xamal ne am na melo ci meloy murid saadiq kon loolu mooy gàttalu mën hëj mooy anam ji sëñ bi daa yare ñi ñi mu daa tërbiye ci ci ci murid yi